Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Sunu Presse à la présentation Aïcha Toupam. dalee nag jàmm li yéen kay yi xëy tay jile bokk na ci libération Bougane Cheikh Yérim Seck ak ki nga xamante ni rek a ah, moo di Kader Dia ah, processus électoral ya nga xamante ni ah, moom la ñu dégmal yéen kay bi di Vox Pop moom dellu si waat libération Cheikh Yérim Seck Bougane Gueye Dany ak ki nga xamante ni rek moom moo di Kader Dia seen dossier ñu classé ko sans suite coordination association taskatu xibaar yi ñoom rafetlu li ni mel muy xamle rek loolu ndam la ci ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy jàpp ne liberté de presse ak la nga xamante ni moom moo di liberté d'opinion moom di xamle ne ki nga xamante yooyu les dossiers yéene kaay bi dellu siwaat ci la nga xamante ni moom moo di conférence de presse bu mouvement Y'en a marre mi xamle ne lu ñu nanguwul woon ci jamonoy Abdoulaye Wade wala Macky Sall du tey rek lañ koy nangu ci réew pa Sénégal mel yéenekaay bi lee di réew mi quotidien moom itam ci li ni mel la daal di àddu muy xamle procureur daan nag dafa taxawal lépp ñëwaat ci la nga xamante ni rek moom moo di libération Cheikh Yérim Seck Bougane Gueye ak ki nga xamante ni moom moo di Kader Dia Bougane Gueye Dany ba ñu ko bàyyee daan nag bàyyiwul moom amalaat beneen conférence de a yàq lu mel ni xamee kii di Ousmane Sonko moom njiital gëm sa bopp di xamle kii di Ousmane Sonko ba mu nekkee foofu sa kaso bu Sébikotane moom dafa daal tappale ngir rek ñu yóbbu ko ca pavillon spécial si jamono jooju nag la mën a négocier ak ki nga xamante ni ah, moo fi nekkoon njiitu réew di président Macky Sall ah, yéene ah, jàppee woon kii di Bougane Gueye Dany Cheikh Yérim Seck ak kii di Kader Dia yéene kaay bile di xam ne daanaka ne ab liberté ba ñu saytu la ñu nemmeeku ci réew Sénégal mu ñëwaat ci conférence de presse bu mouvement Yanamar ba nga xamante ni ngi artu nguurub Sénégal lu ñeel ci wàllub liberté yéene kaay bi li dellu siwaat itam ca ka nga xamante ni rek am moo di am Madiambal Diagne ma ñu bloqué woon ni ki ci mu delloo ab passeport diplomatique ba nga xamante ni moom journaliste bi mu ngi xamle mosul yor li ni mel yéene kaay bi li di les échos moom itam dellu siwaat ci li ni mel di xamle ne kii di Madiambal Diagne dañ ko rek sàkku mu delloo ab passeport diplomatique ba nga xamante ni moom mosu ko am yéene kaay bi di Sud Quotidien moom moom dellu siwaat ci élection législative a ñu dégmal ak la nga xamante ni rek moom a jafe-jafe yéen ci commencé a ak la nga xamante ni rek a lañ ci a xaarandi lu ñeel wàllu casier judiciaire a nga xamante a am nañ ci ay a jafe ak candidature ya nga xamante ni boo moywul rek dañ koy daal di lànk yénne kay bile di l'observateur moom itam dafa àddu ci yooyu les élection législative ak investiture ya nga xamante ko Macky Sall ak jafe-jafe ya nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci parti APR diggante kaw Fatou Bintou Ndiaye Omar Dioum ak nga xamante ne rek ah, moom moo di Abdoulaye Diouf Sarr yéene kaay bi la dellu si waat itam ci la nga xamante ne rek ah, moom moo di Amadou Ba ma nga xamante ni ah, jamono jile mu ngi amal yoonam bu baax a baax yéene kaay bi la di l'enquête moom dafa dellu si waat ci président Bassirou Diomaye Faye ma nga xamante ni moom dafa boycotté rek sommet bu francophonie muy xam ne daanaka ni guleet ci fanweeri at ak ñett ya nga xamante ni sommet de la francophonie mu ngi am muy président Senghor ba président Macky Sall bépp président bu mës a jaar ci réew Sénégal rek a di ngay fekkee si boobule sommet bu francophonie yéene kaay bile di quotidien le loolu nag daal dee tax ña nga xamante ni ñoo amoon jafe-jafe ci wàllu courant daal dee wàññeeku loolu nag dem ba toll ci cent ci atum 2023 yéenekaay bi lee di record moom dellu si waat ci Pape Matar Sarr ma nga xamante ni mu ngi woy di wane boppam foofule ci Europa League ak beneen but ba nga xamante ni daan na koy duggal ni ki démb Bamba Dieng ma nga xamante ni moom dellu si waat na foofule ca Olympique de Marseille gannaaw bañ ko aalee. Le carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.